asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen ziar déglu leen kàddu yi nga xam ne moom la Ousmane Sonko yëkkati woon teg ko ci benn policier ñu koy wax agent secret boo xam ne nii Ousmane Sonko dafa am lu mu ko waxaloon déglu leen kàddu yi. nekk ci mbir mi bokk na ci ñuy accompagner plaignante di ko di ko andi te di nekk tout bureau Omar maa xam jàll moom mooy woo samay nit une semaine avant ne ko tel jour dina am confrontation tel jour dina am kooku mooy joxe léegi information kon moom instructeur dossier bi loolu laa gëm. voilà ñoo ko déggandoo kaddu yi nga xam ne Ousmane Sonko yëkkati woon na ko tegoon ko ci benn renseignement benn policier boo xam ne nii maanaam civil lay nekk mais Ousmane Sonko dafa wax ni kooku ci boppam moo daan jël ay information di ko jox ñooñu Ousmane Sonko ba tuddoon tuuti muy nampel nampel moomu nag démb division des investigations criminelles déglu nañu ko. porté na plainte Ousmane Sonko ñu ngi koy toppee ñeenti chef d'inculpation donc mooy laaj ndax Ousmane Sonko li mu wax dëgg la am du dëgg enquête bi dina ko leeral nampel est-ce que moom da daan joxe ay renseignement wala joxul ay renseignement mais moom jamono bu ñu koy tembe porté na plainte Ousmane Sonko ñu ngi koy toppee diffamation atteinte à la à la à la à la à la vie d'autrui ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ni ñu ngi koy toppee Ousmane Sonko ci mbirum nampel may laaj ndax Ousmane Sonko bu dee loolu am na est-ce que waroon na taxaw ne diw ñi moo ma daan jox ay information ci kanam àdduna bi yëpp nit ku la daan jox ay information est-ce que yoon la ngay jaar ci turam ci histoire bu demee